naa bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baar ku yëg da ngay ñàkk mbokki téléspectateur Equivox maa ngi leen di nuyu di leen ziar di ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen tey nag ku ne xam na ne ñu ngi aljuma mu tombe ak le 9 juillet 2021 li ñuy def mooy bàyyi leen ngeen dem déglu yëglikaay yi li ñu indi ñu dikkaat ak yéen si plateau bi asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah vendredi 9 juillet 2021 dañuy ak ci dañuy ñëw ak yéen ci yëglikaay yi suñu làmb la ñuy xëy dooree ko yëglikaay bi suñu làmb tey xatamu njëkk ñam ca xëy fesal wala ña ca xëy gën caa fes mooy Siteu bu jàmm gën booy Niang bu Pikine yëglikaay bi nag la mu xëy samp ab laaj wala la mu xëy dina wax daal mooy ñoom ñaar ñii dey ku ci ne bés ba nga jëm war nga caa wane lu leer nañ bu dee Siteu sunu làmb daa jàpp ne daal moom mooy njëkk a wàcc ci géew bi la premier hôte war a jàkkaarloog taf Papa Sow moo tax sunu làmb jàpp ne day moom lu leer nañ moo koy xaar te itam lu leer nañ la war a wane booy Niang tamit yëglikaay bi ñëw na ci moom ci loo xam ne moom tamit le huit août lay wàcc war a jàkkaarloog tafatin mel ni ki tamit moom booy ñang itam lu mel noona war si te daal daa mel ni moo ko war ci bis bi nga xam ne ci la jëm keneen koo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci moom muy Balla Gaye numéro 2 ak ña nga xam ne nii daal ñoom ñooy génération 90 ba mu mel ni ki nag mel num Bombardier kese moo ko ci indil ay jafe maanaam moo ko ci daan waaye moo xam baa booy la Tyson tafaagee ba ci Yékini ñoom ñëpp Balla daf leen a daan mel num Bombardier kese mooy ki nga xam ne ni daal moo ko ci daan sunu làmb moo xëy tey ñëw toppal ñu lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne nii wala beneen xale boo xam ne mu ngi ci di dem ñu naan ko mbay guy gi yëglikaay bi nag moo xëy tey andil ñu ay mbër yoo xam ne jàpp na ne ay adversaire la ñu war a doon ci moom wala moo xam gabar sing la bu géej a way góor a sok bu Parcelles Assainies maalaw seras bu Pikine ñett ñi daal la sunu làmb tey xëy génn tegal ko euh, ka nga xam ne ni moom moo di mbay guy gi ñaar ñii moom maanaam ay adversaire la yoo xam ne pare nañ ngir bëre dimanche fa nga xam ne moo di ca stadium Iba Mar Diop muy xeeru ngor numéro 2 ma nekk fa nga xam ne moo di ca yoof wala boog ca Ngor ak ki nga xam ne nii moom moo di booy jóob yëglikaay bi nga xam ne nii daal moo di sunu làmb moo xëy tey dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu mel ni ki daal boo bëggee dégg dëgg kon ñii moom danañu wàcc ci géew bi fi nga xam ne ni moo di ci dimanche bëri bëri xam ne ni moo di ca stadium Iba maar jóob ñenn ñoo xam ne démb moom wàccoon nañu bëre muy diggante Ablaye jóob bu yoof ak pika waaye daa mel ni combat ba daal yàggul tëwul ndax sunu làmb mu nuy xam ne daal 60 secondes daal maanaam bu bëggee dégg dëgg boog wala une minute daal ci la ki nga xam ne ni moo di pika daal di bett ab Ablaye Diop daan ko jël bu rëy rëy rëy sunu lamb xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne yëg yëglikaay bi xëy na tey dinu ko wax mu di beneen promoteur boo xam ne moom tamit mu ngi waajal la wen 2 août ngir nag fas yéene tëgg lambam muy fay production fay daal combat bu mu boole nag mooy sàmm ne numéro 2 ak soxor kele ñaari mbër yi daal la boole keneen koo xam ne tamit mu ngay waajal ab surnem fa nga xam ne moo di ca Kaffrine moo di Sidi Jaxate mel ni ki nag fi mu nekk ni daal siidi daal maanaam ci règle yu mujj yi daal ca la nekk nag ngeen ñaari mbër yooyu seen combat wala boog combat ba nga xam ne ni tëgg na ko fa nga xam ne ni moo di ca Kaffrine yëglikaay bi moo xëy tey ñëw di nu wax lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne nii yëglikaay bi di sunu làmb dikkal nu ci muy ay mesures yoo xam ne ca tuus ya la nekk mel ni ki nag léegi parrain yi moom bu fekkente ne ñëwati nañ ci làmb ñu tuddee leen làmb bu ñu dem ci géew bi parrain bi kese mooy waaj waaye defuñ bàyyi mbooloo mu baree baree bare ànd wàcc topp ko maanaam mbir ma di jël temps maanaam li ñu bëgg léegi daal mooy mbir ya ñu di ko teg ci temps muy gaaw ñu koy mën a def jóge fa waaye mbooloo ma benn parrain moo tax yëglikaay bi xëy na daal wan ñu photo Basirou ko ma nga xam ne ni daal ab parrain la ci làmbi samedi ji nga xam ne moom la Fallou Ndiaye tëgg mel ni ki daal kon daal kuy ñëw àndal ak sa mbooloo waaye bu présenté jotee moom ba wàcc jëm ca géew ba jot moom parrain bi kese la ñu may mu wàcc jëm ca fa nga xam ne moo di ca géew ba keneen koo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci moom war a tëgg samedi tamit muy Baba Diaw yëglikaay bi ne na ren daal mu ngi jëm ci ñaareelu journée boo xam ne ni moom lay tëgg ginaaw ba mu fi tëggee soq ak gàmmu géey yëglikaay yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy tey ñëw di nu wax lu mel ni ki leneen loo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci mu mel ni ki nag ka nga xam ne nii daal moo di Balla Gaye numéro 2 les arènes boog moo xëy tey ñëw di nu wax ne daal regroupement lay commencé ak ginnaaw lëndi ji nu jëm fa nga xam ne mu di ci kër Aziz Ndiaye bi moom moo xëy tey ñëw di wax lu mel ni ki noonu kenn koo xam ne yëglikaay bi daa ñëw tey sampab laaj ci moom muy Lac de Guiers numéro 2 ak la nga xam ne nii wala ña nga xam ne nii ñoom lañ dippee ay VIP nañu koy rejeté daal di bañ a bëre ak moom yëglikaay bi di les arènes moo xëy tey dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu moom les arènes daal tey ñëw na ci lu loolu lu yaatoo yaatoo yaatu moom yëglikaay bi Tapha Tine tamit yëglikaay bi ñëw na ci moom ak mel lu lu jëm ci programme fi nga xam ne nii moom moo di ci Sénégal ak na nga xam ne daal noonu lay waajale leneen loo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci moom lay zaren muy diggante Pape ndoy ak Abou Niasse boo xam ne daal ñoom ñaar seen combat daal ba mu taxawee daal ah daa mel ni ku ci nekk daal wax nga sa morom la nga ko bëgg a def wala la nga xam ne ni moom nga ko naral mel ni ki tey kon loolu moo fi dikkoon ci yëglikaay yi nga xam ne nii ñoom ñoo yëngatu ci wàllum làmb jërë ngeen jëf kon dégg ngeen yëglikaay yi muy sunu làmb les arènes tey fi ñu xëy génn ci wàllum làmb ak ay xibaaru làmb ah bokk na ci nag euh, ginnaaw bu ma leen nuyuwaatee ziaraat leen ñaan laat leen jàmm sàquwaat ko si yéen ah di leen balu àq bu baax a baax si ajuma ji ndax wax wax ku ne xam na ne lu méttee méttee métti la wax dëgg yàlla te kuy wax ak ay nit ñu lay déglu defe naa ne des fois nga wax ba wax loo warta wax te loolu lépp njuumte lay doon mais du doon lu ñu gënal kon moo tax daal dañ leen di balu àq saa su nekk rek saa bu ñu juumee jàpp leen na rek nit moo matul di leen jaar yéen ñëpp ñëpp fu ci waay mën a nekk si àddina bi rek tey nag aljuma ji comme ni ngeen ko xamee tombeeg le 9 juillet bu nu ñëwee ci yëglekaay yi sunu làmb la ñuy xëy doore ko xëtam mu njëkk tey fa mu ci xëy génn maanaam booy ñang ak taf ak ka nga xam ne moom moo di sitta ñoom ñaar ku ne xam na ne mois d'août bi seen mois la parce que la tax mooy Siteu moo koy ubbi le premier août ku ne xam na ne ci la war a jàkkaarloog Papa Sow yëglikaay bi nag ne la ko war moom ah mooy rassuré de maanaam dalal xelu ña muy àndal parce que ku ne xam na ne Siteu ah, xaw na gëj a bëre tuuti te bi muy mujj a bëre ci defet la joge woon diggante mag guy gi ca stade Léopold Sédar Senghor kon defe naa tey ah soxla na amaat victoire ngir nag gën a bokk ci làmb ji ndax Siteu lu waay waxadi waxadi ku ne xam na ne xale la boo xam ne yàggut ci làmb waaye nag bokk na ci tey xale yoo xam ne nii ci làmb a ah, mbër yu bëri bëgg nañu egg fi mu taxawe kon nag bu jógee ci defet bu toll noonu jëm ci combat bu toll nii mu jëm itam la ko fay xaar bokk na ci victoire yëglikaay bi nee na loolu daal ah est-ce que du moo ko fa war a wan a xaar ngir mu dalal ay xelu ña àndal wax loolu nag xam naa ne moom la bëgg ci lay dox itam ci lay wax waaye ndax dana loolu fala question ba ne parce que Papa Sow tamit dafa jóge ci écurie gëjoon bëre nekk ci defet yaa ngi dégg sànc écurie bu bees moom tamit dafa am lu ko war mooy ndam comme mel ni combat bi wax dëgg yàlla le premier août moom combat Pape Abdou Fall boobu combat enjeu dëgg dëgg dëgg dëgg la diggante si tak Papa Sow ndax ñoom ñaar kenn du ci bëgg a perte kenn kenn ku ciy bëgg a perte du ci am waaye nag sport lañu jëm il fallait lenn am si rek match nul du ci mën a il faut mu am wala am ko am défaite am ko am victoire yii rek moo fa mën a am yal nañ ko fekke daal te taal ko match ni nag moom gëmuma ko ci diggante Siteu ak Papa Sow ndax xam naa ne bu arbitre soufflé lu mënte xew bu round d'observation bi amee itam du yàgg dana ñu xeex te ñu bëri te buñ loolu amee faw jël la am da di nag ka daanu rek laa yéram ndax dina métti ci moom trop ci surtout carrière am waaye nag du tere que ni mu xam ne sport la bu keroogee liggéeyaati continuer rek parce que sport moom moo tëddee noonu keneen koo xam ne mois d'août bi tamit lu rëy moo ko ciy xaar muy Boy Niang numéro 2 mu mel ni koo xam ne nii ah war na wane lu rëy yëglikaay bi di sunu làmb ba tey moo xëy di wax lu mel ni ki noonu ndax ku ne xam ne le 8 août ci la war a bëri ak Tafatine drapeau Cheikh Kanté ancien DG wu port ministre conseiller président Macky Sall defe ne moom tamit bés bu rëy rëy rëy moo koy xaar moom mi nga xam ne ni moom moo di Boy Niang ndax itam ku ne xam na ne ah bi muy mujj a bëree dafa ñàkkoon combat am digganteem ak Lac de ci 2 ci par ci recours bu nga xam ne moom la Lac de Guiers dugaloon au niveau du CNG ba mu génne ñu ne Boy Niang da nga ñàkk combat bi yaa ngi dégg kon defe naa tey moom itam bëgg na ñëwaat wanewaat boppam hmm, wane ne foofu njuumte moo ko fa daloon wala erreur te itam li ko koy may mooy mu wan tafaatin loolu ci giiw bi daan ko waaye itam la mu waxoon fee rek laay wax du doon lu yomb ndax tafaa gëj naa bëre 2018 su ma jumul la mujj bëre ba muy daan Yékini Junior ca stade Amadou Barry ba ci Guédiawaye fa la mujj bëree ba nii mu ngi toogoon di xaar combat tey am na combat moom itam da ciy bëgg a garba kanam pour gën a continuer lancem gën a toog ci place VIP yi nga xam ne fa nekk booy Niang tamit VIP yooyu nga xam ne dugg na fa dafa gën a bëgg mën a xuus te la koy dimbali mooy mu daan dafa Tine moo tax seen combat itam combat enjeu te booy Niang ku ne xam ne ne am na beneen contrat boo xam ne mu ngi koy xaar muy digganteem ak ki nga xam ne ni moo di Balla Gaye numéro 2 bu nu continuer Balla numéro 2 yëglikaay bi tamit mu ngi ñuy xamal ne boo xoolee ci génération 90 bi daa mel ni daal kenn moo réussir am ci moom ndam muy Bombardier parce que à part Bombardier ñi ci des ñëpp da leen daan moo xam Tafa Gueye la moo xam Yékini la moo xam Tyson la ak baabooy ñoom ñii ñëpp ku ci ne wax dëgg yàlla bi nga bëree ak Balla Balla daf la daan te ñooñ ku ne xam ne ay génération wu Bombardier lañu Bombardier nag moom yàlla def na moom moo daan ki nga xam ne moo di Balla loolu nag mën nañ seen di jàngat boo xam ne Bombardier boo xoolee muy Tapha Gueye muy Baboy muy Tyson muy Yékini moo leen gën a féete xale donte ñoo bokk génération ah mais moo leen gën a féete xale yaa ngi dégg loolu tamit bokk na ci xëy na lu war a tax moom mënoon a am ci Balla ndam ci combat bu njëkk ba ñu jëmaat ci seen deuxième komba yàlla nañ ko fekkee tal ko mbay gi ak ay adversaire am yëglikaay bi mu xëy tey teg ay adversaire muy Gabar Singh muy Gora Sock muy Malaw Seras waaye ñii ñëpp ku ci nekk daal defe naa ne tey ah bu fekkente ne mbay gi pare na pour bëre ak yow ku ko tëgg itam di nga am combat bu neex mbay guy gi Gabar Singh xam naa ne combat bu neex a neex a la war a mën a doon nga gabar gëj nañ kaa gis góor a Sock nag Euh, damay dama naan su amoon sax mooy dàq loolu moom xam naa ne man boog man bu ma doon choisir boobu laay choisir si combat yi moom Malaw Seras tamit lu mën a nekk la doon demaalo gëj na si géew bi bi fi mujjee defet la mujjee waaye loolu la waaye mën na itam war na mën a nekk mais loolu lépp ci choix promoteur bi lay doon ak adversaire yeeg yu mel ni ki noonu parce que promoteur yi tamit des fois ñoom ñooy ficeler seen ay combat pour mbër yi tamit ñooy bëgg bëri bëri ak kii wala kële Boy Diop ak Xeeru Ngor numéro 2 loolu dimanche lay am stadium Iba Mar Diop Boy Diop. ku ne xam ne ne école de sàkku xam-xam bu Birahim Ndiaye la nekk xeeru ngor numéro 2 nekk fa nga xam ne moo di ca ngor te xale boo xam ne tamit bu am avenir la hmm, ci làmb waaw ñoom ñaar ñi ñëpp ñu di ay gune yoo xam ne ñu jara bàyyi xel lañ ci làmb ba tey bu ñu continuer ci biir yëgle kaay bi ah moo xam sunu làmb la ba tey ñëw na tamit ci li nga xam ne moo amoon dem fa nga xam ne moo di ca euh, arène nationale di làmb joo xam ne doxoon na ci diggante Pika ak Ablaye Diop mu ni kii nag Pika dafa bett Ablaye Diop maanaam une minute daan ko parce que nañ fii ci photo bi mu wër ko jàpp tànk bi mu mel ni kon loolu moo fa amoon démb Amaja moo ko tëggoon moom tamit di koo xam ne ah promoteur la léegi yàgg si làmb ñu koy ñaanal yàlla structure am boobu yàlla na ci yàlla teg loxo ba mu gën a yaatu ba mu mën a tëgg sax combat VIP parce que tamit. ku jéemul dara doo def dara te jéem moom dafa am solo li am solo rek mooy del jéem ànd ak ñi nga war a àndal di wax ak ñi nga war a waxal bu ko defee yàlla mën na laa jàppale ba tey bu ñu continuer Sidi Jaxate mu ngay waajal Kaffrine ja waaw moom itam koy waajal ku ne xam na ne tëgg na fa làmb waaw après tabaski lay doon yaakaar naa ne ah Sidi Jaxate suñu papa jooju bu ñu continuer Balla Gaye numéro 2 tamit yëglikaay bi ngeen jégal ma regroupement à partir de lundi c'est Aziz Ndiaye loolu su les arènes moo xëy di nu ko xamal euh, Lac da Guiers 2 ak ni ko VIP ignoré yëglikaay bi daal ñëw na ci tey les arènes dañ ko jàngatal waaw Franc tamit ba tey mu nga xëy daal diggante ak Parcelles Mbooloo daal dana bañu ci sax année balance waaye caution moom xalaatu ko joxe tey suba waxi noppi. waaw mel ni kon maa nga dëgg tamit ci les arènes gis nañ ne mu jëm fa nga xam ne moo di Fatick ci samdi ji ah. waaw loolu xam naa làmbu simple lay war a doon parce que moom itam ku ne xam na ne ah bàyyi na làmb waaye mu ngi ci dugalaat xaalisam di jàppale xale yi ñuy bëre Franc ba tey comme ni ma leen ko waxee rek hmm, moom na. pañut sax def année balance waaye caution moom du ko joxe tey suba waxi noppi loolu nag diggante dem ak personne mbooloo la waaye foofu moom la ma ci waxoon laa ciy waxaat rek waxtaan leen rek loolu wala nañu bokkum teen ñooy laxasoo ay goj te bon comme àndoon ngeen ànd bu yàgg mu neexoon tey li tax ànd bi naqari bu ngeen toogee waxtaan pour man di ngeen trouver terrain d'entente te defe naa loolu moo ëpp solo parce que defante bi ak jàppal bàyyil bi tiraillement bi amul benn sens si yéen ñëpp nag amulul waa Parcelles Mbollo njariñ amalul Franc njariñ parce que Parcelles Mbollo écrire ay ay mbër a fa ne di bëree war nañu continuer ñoom di def seen carrière ay nit a ko encadré Franc tamit xale la boo xam ne am na avenir wu làmb nit ñu nga koy bàyyi xel kon defe naa ne bu ngeen toogoon waxtaan ah tëral seen ay xol pour man di ngeen gis solution bi nga xam ne Franc dina dem ci lam bëgg dem yéen ngeen toog ak seen écrit te problème du am yaa ngi dégg pour man loolu moo gën tiraillement bi ak xëccoo bi ak jàppal baa bi ndax loolu amul benn sens du yóbbu mbir fenn non non non parce que loo faj ak rek ëllëg bu sa xol giifee mën na am nga réccu ko loolu nag yàlla nañ ci yàlla musal di balu ñëpp àq tey ci àjjuma ji bal ñëpp àq di ñaan jàmm Sénégal yal na ko fi yàlla def ah feebar bi bi nga xam ne moo fi nekk depuis lu mat un dafay jóg ne ci àddina bi yàlla na ko fi yàlla jëlee barkante bi sallallahu alayhi wa ñu génn àddina tamit ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla na leen yàlla jégal ñu nekk si yi tamit du ñu di leen nuyu ah, yàlla leen fa yàlla génne ah ñoom ñëpp ku ci nekk rawatina suñu mbokk mbër yi fa ne ñoom bébé ji nag mbër yu mel ni kii noonu ñoom bébé Saalum ay kaw si si ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla génne leen foofu parce que tamit ñun ak ñoom ñoo bokk làmb ji ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo nga fa xamuñu leen yaa ngi dégg ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal jàmm parce que ci réew mi lañ bokk te ay ci askan wi lañ bokk xëy na njuumte nag moo dul wees ci nit parce que olof di wax ne àddina moo ko weeru koor a yem rek fekk ndog fekk fekk dogoogoo moom jubu weesagul fekk yaa ngi dund rek jàpp ne lépp mën a arrivé waaye yàlla nañu yàlla musal aar ñu sàmm ñu barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu képp koo xam ne yaa ngi ñuy suivre à travers Equivox TV duñ la fàtte aussitôt di nuyuwaat rek comme ni ma ko doon defee rek suma mbokk yi waa ak yaay encore une fois maa ngi leen di bégg di leen siyaar di leen ñaanal jàmm di nuyu waa Mbomboy Tàllañ gaat njaman hmm, dëkk yooyu yëpp xam nga duma leen fàtte tuube daadak fépp fu dëkk waaw dëkk yu wër foofu yëpp ci bawal daal ay njobeen dëkk yooyu yëpp daal maa ngi leen di ziar leen ñaanal jàmm parce que euh, abi foofu laa soqe ko ci zone yooyu may limu noonu foofu laa ware fatu fa foofu laa ware fasu gi tax comme nu ko suñu papa Xaadim Sàmb doon faral di waxee kon maa ngi nuyu dëkki dëkk yu nekk foofu yëpp maa ngi ci commune Ndondol ak ñi ci commune Ndangal ma yëpp waaw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 naa bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baal ku yëg da ngay ñàkk